asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou taxa ñu fi Serigne Touba ñu ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naa li nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey sëriñ Touba suñ boor mooy ko kàttan ak wér ba lépp mu àggale ko ñëw fii di yëkkati kàddu yu gàtt di kàddu yoo xam ne yaar rekk la cant ak ngërëm ak ñaax ak soññ ndax Cheikh Mouhamadou taxa yàlla dafa def ci moom képp ku fi nekk Sëriñ Tuubaa suñu borom dàq na ci yow adduna dàq na ci yow bakkan moo doon Serigne Touba te Serigne moo doon Rasulullah kon wa maa yantiqu anil hawa lépp lu mu wax rek lu yàlla digle lépp lu mu wax rek lu suñ borom santaane la ndax li Serigne Touba waxoon rafaatalan na ko képp ku ko fi toogal toogoota ci mujj njaarim bi ñenn ñi ñëwee di ko digal ne ko dañoo bëggoon nga doxale sa diggante tubaab yi diw ndax mën naa am ñoom danañ gën a mën a wax ak ñoom te kon jàmm dana gën a mën am si digg ak ñoom sëriñ bi ne leen loolu de duma ko def ndax sama digg ak ñoom kenn doyuma ci ñoom ndax ku dul man rek mën nañ la xupp wala ñu xëpp la man nag mënisuma xupp mënisuma xëpp sëriñ Tuubaa nag loolu la ko suñu borom defal képp ku ko fi nekkal itam doon doon na leen na loolu kon nag dañuy sant yàlla bu baax bi ñu Sëriñ tubaa fàggulee ay kilifa yu mat yu mat lañ doon képp ku ko fi mas a nekk nag Sëriñ Tuubaa def na loolu ci yow ba yàlla def moom mii nekk fi di Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na suñ borom dëgëral ko te guddale aw fanam tamal ko kàttan ak wér muy jëmm joo ne nag bokkam yi mu bokkal Sëriñ Tuubaa li muy wax naan lu mu doon rek ñoom laa ko gën a yéene moom itam yàlla def na loolu delluwaat ci moom ñoom ñëpp yéene nañ ko jotaay bi ñoom ñëpp ko yéene ndam wa yuusiruuna ala anfusihim wala bu kaana bihim xasaasatun bu ak dundut teewoon ak faatu teew ñoom ñëpp mën ñu mën a joxe seeni bakkan ngir moomu nekk la loolu nag lu ko yàlla defe la ma dindi ci seen seere rek di kilifa bu bu mag bu baax ku maandu goo xam ne lépp lu mu wax rek ñëpp xam ne ne waxiwu ko ci bakkan muy Serigne Cheikh Mbacke Serigne Saliou ci njëlbeenu xilaaf ak Serigne bi damaa wax ne ma Cheikh Mouhamadou Mountakha de jataayam bi lim may nuróor mooy wa yawma aslama jibrilul amine ata bi isni man huwa fawqal kulli qahaaru mualliman anna anna islaman fata omarin busra li ahli san wal kulli yaxtaaru ñëpp maase ci nangu biram loolu nag li ko ko may mooy li tu Touba wax ci nax ju rek wa min saadatil fata xaysu xasat allah yurdahu fuaadu zirasat sëriñ bi dafa yéene ñëpp jàmm mandargam tex gi ko suñu doon defal nag moo tax benn xol du ko delloo moo tax tey biñ nekkee ci biir oto bi maamoom ak sëriñ Isaaxa rakam ñu jëm ci jullikaay ba damaa yéemu ci mbooloo mi xër gi ñu am ci moom ak ni mu ko yëgatee moo wax sëriñ Isaaxam Cheikh Mahoudou Bachir ne ko li ma gën a yéem ci mbooloo mi de li muy bari bari boo koy seet ñëpp ay ndaw lañ ay ñaar fukki jëm suuf wala lu ko lu ko lu ko weesu tuuti nag kenn wane na ne mbirum Sëriñ Tuubaa lu adduna gën a doxee ci kanam la ndax ndaw moom ak jigéen ñoo yor mustaqbal ma àgg ci ne ko li ma gën a yéem mooy jamono dafa àgg ci ñëpp bëgg Sëriñ Tuubaa doon seen kilifa. rawatina ndaw ñi day mel ne rus nañ sax kenn di doon seen kilifa ku du sëriñ bi loolu la ko suñu borom fay kon nag liggéeyu sëriñ Touba bii kenn di cee doonul dara lépp sëriñ Touba ko faggul boppam loo ci gisit ak nu mën a dem rek sëriñ Touba ko faggul ndax li gën a jafe mooy xol yu nongu te lépp ñu nangu koo joxe ngir sëñ bi kenn ku ci ne la ngay denc sa la ngay jox sëñ bi gënal la ko loolu nag yaakaar naa ba ci histoire wu l'islam ba nag kenn mës am jur nit joxe jël sa alal bañ faa sa dara Sëriñ Tuubaa rek ku jëkk am te ba nag ni kenn amatu ko moo tax illa yaqaadallaahu maalam yukku ni boo koy firi fu ne danga ko fu mën a firi ndakaaru gi itam li xayrillaahu fii ndakaaru kulla azan li jërahuma kaaw fexe yi ñu ko fi doon fexeel mu taroon lool metti loolu nga xam ne sëriñ bi fu ne jaaral nañ ko fa lu ne def na ko waaye fii rek lay wax ne bu ma ko fàttalikoo mu metti ci sama xol ba ma bëgg buur rañaan ngir eh, dem def jihaad waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa tere ko xamal ko na ko yaa ngi ci jihaad ji gën a mag isa sakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa thubuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin zabba an il kon sëriñ Mbàkke yu fay day jëwriñu sëriñ bi ci ndakaaru sëriñ baa ngi koy sant bu baax di ko gërëm cant gee ngërëm li nag mooy taxawaayam ndax lii mu fi indi tey mooy mooy li ci gën a tuuti ndax joxe na jëmmam joxe alalam joxe xalaatam joxe dooleem ba matul dara ci boppam te loolu man mën naa mën naa koo seere kon Serigne Ba nga sant cant goo am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye nag xam na ki muy jëfal ndax jëfal Serigne Touba moom jëfal sa bopp rek la waaye nag jàmbaar bu jëfee ba kenn mënu ko ca li muy def warees na kañ sant ko kon Serigne Ba sant di ko gërëm cant gépp na mu dolli ko ñaan. ñaan leen mooy la mu ko seeral lool ne ko li ngay am nga ko mooy ngërëm Serigne Touba ngërëm Serigne Touba loolu mu ko seeraloon nag nee na mi ngi ko ñaan ngërëm la sax ci moom. dotti ko ci moom ba àgg ci ak njabootam ndax tey jii kat xam ngeen ne bis bii waa Ndakaaru la ko sëriñ bi doon te mooy seen jëwriñ ngir rek am yërmaande ci ñoom ngir xam ne bëtu yërmaande bu leen xoole wala mu wàcc ci suuf si rek danañ am jàmm danañ am danañ am danañ am xéewal moo tax sëriñ bi ñëw kon nag bu ñëwee mu jëf lu rëy li mu jëf ci ngan gi te ngan gi kat xam ngeen ne lañ def ci togg yi rek ëpp na juróom-ñaar fukki million te nee na sëriñ bi ay téeméer nag des nañu kon mbirum suñ tubaab moo demee noonu li nga xam ne taalib ko doon barkeeloo nag lépp dem na ca ci boppam nag moo ne la sëñ Abdou daa wax ne taalibe bu ñuy jox sëriñ bu ñuy jox addiya te doo jox addiya daa mel ne ku yoroo waxandew gaalam ku fóot ay yéreem ba mu jekk rek mun la dencal la bu ñu demee ba àgg ci bisu taa ku ne bi yéeram nga jox ko doo am loo sol kon moo xam ne di jëwriñi nit ñi itam war ngaa génn ci sa ñaq bopp loo joxe. Mm-hmm. moo tax mu ne tey day sant sëriñ bi yëkkati lu toll milliard jox ko sëriñ Touba. addiyee milliard nag sëriñ Touba dégg na ko ba tey waaye yaakaar naa sëriñ Touba rek ku ko mos a dégg mm-hmm. joxe ko ba noppi di ko xeeb. kon dañ koy ñaanal dërëm bu ci ne rek yàlla soppilu ko ay tuyaab yu bari te suñ borom noonu lay faye man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayyiati fala kon nag lii aw soññ la ci képp koo xam ne yàlla defal na la wërsëg nga xam ne wërsëg kat ku yàlla defal jox la xolom nga def ko ci baax war nga sant yàlla bu baax suñ borom nag xam na ne diisati ci nit ñi moo tax mu ne wala yasalkum amwalakum yasalkumuha foo yuhfikum tabxalu yukhrij adxaanakum xam na ne alal dafa taq ci xolu borom waaye Serigne Touba nag ndegam lu ko népp lu ko lépp lu ko nit di jox ndax soxlawut alal ji ci yàlla la koy defal moo tax nit ñi joxe seen alal gën gën a waxoon na ne nag alale dongee deen xool bu baax bi ngeen ko tàbbal ndax nit fu alalam ab xolam topp kon nag bu ngeen gisee ñi fi nekkee Serigne lu nit joxe xeeb lépp dafa delluwaat ci yàlla kon nag sëriñ bi ko sant di ko gërëm di ko ñaanal mucc ak xéewal ak barke te lii mu jëf kat yàgg na koo jëf ndax man li ma xam mu def ko ci liggéey siñ Tuubaa bi ci jumaa ji waxuma nag xew-xew yi mën na ñeent milliard ci wala mu ëpp ci lu mu wóor kon lii day lu feeñ rek waaye li ci def ëpp na loolu kon nag loolu sëriñ Tuubaa rek la ko yàlla defal waaye nag ak cant rek mhm. maa ngi koy wax sëriñ Yuusu Jóob nii di jëwriñu daayira Hizbut Tarqiyyah léegi di ko ñaanal suñ borom dëgëral ko moom ndax dañuy waajal ab siyaara bu mag mën a ko Sëriñ Tuubaa de ku ku kuy jug jëm ca kenn du la yërëm la ma waxoon ak Cheikh Ibrahima Fati ne ko bis mu woo leen bañ dikk fekk yeneen sëñ bi di sant dafa bari sëñ bi ne ko ab liggéey laati de ab liggéey laati ndax liggéey nu muy toftaloo rek moo ne ko mbàkke de li tax saa soo ma wàccee du ma nangoo wàcc mooy yaay ñu njëkk xëy ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ba gën a wàcc ko koo ko xool ci sëriñ bi ñaan xam ne li muy def jom rek la ko defee ak positif ma ne ko li may yéem ci yéen yéen a ngi jigo ci koor gi li ngeen ci daj yéen a ngi ci këru xasida war a defaat ab siyaar bu mag boo xam ne dañuy jaayante war sëriñ bi wëlbatu ko di waajal màggal Tuubaa te li jees ëpp ñetti loolu nag Sëriñ Tuubaa rek ko attan te taalibe Serigne Touba yi nag Serigne Touba leen ko faggul ndax ñoo dàq joxe ci nit ñi waaye ñoo ëpp wërsëg ñëpp kon nañ xam ne fàggu def Serigne kon nag la Sëñ Abdou Lahad waxoon rek ne luñ góorgóorlu ci sëñ bi doyut ndax luñ jëfu ci sëñ bi àdduna dana leen ko leb te àdduna lu mu la leb du la ko delloo kon loolu ñëpp ci war a jàng te xam ne addi yi nag positif rek ci am solo ndax ki man a joxe milliard ak ki mën a joxe dërëm na ko sëriñ bi leer la woon ci gànnaar nett woon naa ko seen siyaare ba daaw ki joxe dërëm te am positif milliard mel na na ko joxe milliard waaye nag kon euh, dañuy sant ñëpp di gërëm ñépp te xam ne nag taalibe yi moom li ñuy joxe soxlawu ñoo xam fu ñu koy def waaye nag lu ci tàbbi ci sëñ bi nag day tax muy gën a sotti ko Euh, maa ngi koy wax sëñ Yuusu léegi la sëñ bi waxoon sëñ ma juf jatti ne ko Cheikh Ibra Fall de li mu wuteeg ñëpp mooy bu ma ko liggéeyloo am néeg mu liggéey ko ba néeg bi àgg ma kos almet taal ci wala ma ma di liggéey yonent bi di fa jàmm yàlla ñooyam ci moom loolu nag sëñ Tuubaa rek ko kon nag dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan dëkk bii di ndakaaru nga xam ne ku tedd kii wàcc na fi di borom jamono yàlla na fi suñu borom wàccee xéewal ndax Serigne Mat Saxir Mbaye kat ma mas na Cheikh Mamadou Fadil mas na koo seeti mu tari ay bayit yu am solo mu sadd ay bayit ne ko lillahi qawmun iza xallu bi manzilatin xallan nada wa xalat fi ljawi anwaaru tastaaquhum kullu ardin yansiluuna biha ka annahum bi biqaahi l ardi amtaaru mm-hmm. Cheikh Mamadou Fadil tontu ko ne ko isa laqitahum aw kunta zairahum bi yumnihim faaraxakat faaraxatkat dahr aw zaru ndax moom Cheikh sëñ Ahmadou Saxir sëñ ma Saxir Mbay ku àggoon ci boroom la doonoon nitu yàlla ku mag nit nett na ma ne mas naa ci njaareem koo xam ne da ko fekke Cheikh Fall mi newoon ci jumaa ji ko fekk daa siyaare soon Cheikh Mamadou Moustapha bay génn am picc dugg ci néeg ba caag mu génn mu ne di picc mi bi may tàggi diw doomi diw ak diw nañ indi suuf ma ñaar ko ñu doon tubb suuf indi ko mu ñaar ko naka mu génn rek ñu tàggi ko kon kooku nitu yàlla Cheikh Mamadou Fadil nag ñëpp xam nañ ne koo xam ne waxuma la loo ñaan waaye loo kafe sax suñ borom def ko kon nag ñu ngi sant ñëpp di ñaan nag ci darajee Serigne Touba ci wàcc gi fi Serigne bi wàcc xam ngeen ne dëkk bi jamono yi yëpp nit ñaa ngi jàmbat ñàkk sécurité te sécurité kenn ni ko suñ borom waxee ci alxuraan fu mu néewut kenn du tale jaamu yàlla falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf kon yàlla fi suñu borom defaat barke ba dëkk bi newaat ci jàmm ndax jàmm ku ko amul dootal dara ba ca des it ñi ngi masow sëriñ bi sax waroon na fa yónnee suñu bokki dëkk bee di tiwaawoon di mbokki jullitam di mbokki deretam xew-xew bu diis ba fa wàcc nañeen xam ne loolu mbas la mbas la mu rëy am nattu la nattu nag jullite ko moom mbugal yéefaru ko tax a jug kon loolu nattu la waaye sëriñ bi nee na mu ngi yëkkati kàddu njàll di ko teg ci ki nga xam ne mooy kilifa dëkk ba di sëriñ Babacar Sy Mansour al xalifatul am di tarixati tijaaniya ak mboolem njabootug Cheikh El Hadj si gépp ak mboolem ña fa dëkk ci dëkk ba bayut kenn mi ngi leen di jaale ñooñu nga xam ne ay mbokk lañ di ñaan ña fa bàyyi ko te ñi ci ëpp di ndaw wala bu fekkee du lépp itam day ci ëpp ay ndaw lañ suñ boon def leen li ñuy wax asalafu salih dawalu biw ndax ne ñoom toggaguñ leen jëf ba bàkkaar wala waaye su yàlla suñ boon bool leen ci mina salafi salih lu ko suñu borom may rek may gi day continuer wa am si yun si nii bi yam yow beexat lu lu mujj rek day gecceel la ko jëkkoon mas naa wax sëñ Massamba Diop Samb ne ko Massamba mu ne ko Mbàkke mbaa mu ne ko mbaa xam nga ne ak Dame Sanda Dame mooy denc ko ay mu ne kon ñu fas yéene doone lantinoor rek mu ne ko loolu képp koo xam ne def nga ko ci buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu faa amul diw danaa ko yëkkati nag sa diw gaal gi kon lii seen jëf ji ci loolu rek la tàbbi Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen ne milliard bari na lool bi ku ko sëriñ bàkki yu yëkkatee jox ko ko mu tegaat ko ci sama loxo ne ma lii kat addee Sëriñ Tuubaa nag addee Sëriñ Tuubaa nag ci compte Sëriñ Tuubaa rek lañ ko war dugal ne kon daal koy jël dugal ko ci compte Sëriñ Tuubaa bi moo tax fi chance ñu woo waa banque islamique bi nga xam ne fa war a dugg ñu ngi ni toog di ko wàññi ak njabootu gi suñ bàkk yi fa yebal ak doomam ak i jarbaatam ñu ñëw wàññi ko weersoo ko ci compte suñ Tuubaa bi moo xam ne addee suñ Tuubaa la kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xool yëpp set la xorom njëkk a set yow la sëñ bi waxloo yow la sëñ bi wóolu yaay loxom yaay tànkam yaay làmmiñam